Baye. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam mbokku sénégalais yi mm-hmm. euh, man la Mouhamed Ali Ndiaye seen doom seen xarit. Mm-hmm. nekk fii ci Italie. Euh, tey nag suñu borom dogalaat na moom mi nga xam dara taw ko. Mm-hmm. ñu joxaat ñu yeneen oto sapeur pompier. Mhm. ñu jëmale ko Sénégal. Mhm. précisément précisément à Touba. Mhm. Ah, defaat ko addiyee Serigne Touba mu nekk ñetti oto sapeur pompier. Ah, benn bi mu ngi nii yab nañ ko pour yóbbu ko pooru Livorno. yeneen ñaari ñu nga fële. ñi ngi sant nag di gërëm mhm. euh, sëñ Mountakha Bachir la xalif général de kullu murit mhm. di sant di gërëm euh, sëñ Abibullahi Mbakke Falilu mhm. jëwriñ ja ak sëñ Takke Mbakke Falilu ak waa Touba ca kanam yëpp jaarale ko ci ak sëñ Abdou Fatah Gaye du nuyu euh, Baye Baye Serigne Diop Touba ca kanam Italie di nuy baay bay bay bay ci ñang bay xaasim mhm. suñ seexu naa njaay mhm. euh, waa Touba ca kanam yëpp ñoo ngi leen di nuyu fépp fu waay moo nekk ci diaspora bi mhm. di nuyu sama mbokk sénégalais yi ñu àndal euh, bay moodu buuna aaw euh, york ak suma doom ji musa ak sapeur pompier yi nekk suñu ginnaaw yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm oto yi nag ñetti la oto la benn bi huit mille cinq cent litres doole yi def bi ci des mi ngi def bu ci des quatre mille litres doole ñu doon àdduna Sëriñ Touba ñu fekk ci loxo Touba ca kanam moom ñoom ñoo koy jébbal seen muy taxaw mhm. ak waa commune Touba yëpp mhm. incha allahu rabbi mhm. asalaamaaleykum wa rahmatulah